kon kon fii mooy sa néeg. fii mooy sama néeg. fii da ngeen fee loué wala yéen moom kër gi. non dañuy loué. moomuñu kër gi dañuy loué. Hmm. fii bu tawee nan ngay dundee lii. ah kon ñu ko gisee rek fii bu tawee moom kon ma dañ may jàppale teg ma ci perron bi ma fanaan foofu noonu waaw noonu laa koy dundee mu ci na trop waaye nu ñuy def yàlla baax na. problème massage daal nga am. waaw mu massage. problème massage moom instant rek sama problème soo dëgg yàlla bëgg naa continuer si li ma def samay activité parce que samay waajur man lañ yaakaar budul man. mais booy dem ñaata parce que man parce que daanaka xam nga ba muy métti métti woon na trop parce que si man man dama doon dem laa xam dañu may yóbbu nii rek. mënu mënu ma woon xaw ma woon. mënu xam ñaata lañ yóbbu. xam sax lañ leen yóbbu mais c'est que waxe metti woon na salaamaaleykum amante not Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte ci yéen nag di leen ñaanal jàmm di kontaan ci ni ngeen ni toppee émission bi de Dakar Buzz social gis nañ ni saa su ne yéen ngi ñuy topp dinu ñaanal dinu encouragé dinu ñaax may ñaan yàlla taxaw leen defal leen jàmm yokk sutura si seen émission Dakar Buzz social nag jógaat na ñëw tey fii ci Jaksaaw jàmm a seet si suñu frère kenn koo xam ne kenn la ci ñun mu feebar na tëraay bi yàgg comme Dakar Buzz Social dafay nekk pour askan bi jóg na sol dàllam ànd ak ñi équipe bi mu war a àndal ñëw seet ko war a waxtaan ak moom ci tawat ji kañ la ak nan la ko dikkee ku baax maa ngi lay. fay. tur bi naan la. Lansana Diedhiou. Lansana Diedhiou feebar bi depuis kañ la. yàgg na depuis le 23 février 2018 ci la am feebar dama daanu fu ma doon liggéeyee. comme peintre Massalikul Jinaan fa laa daanoo waaw depuis loolu nag maa ngi nii doon jéem a faju def naa lu ne métti na trop métti na trop ndax sama mën na samay waajur man lañ yaakaar parce que maa doon liggéey di leen jox te jën su mu nekkee situation bi nii rek amatuñ feneen te man rek maa nekkoon seen yaakaar wax dëgg yàlla def naa lépp li ma mën moo tax may ñaan dimbal dafa bi ngay yéeg ci peinture xanaa tag ko non si ci safo yi ci saf li ñu naan dogal bu naree jot ak jot na waaw. mais daanu bi na la la dikkee. non parce que dama doon tracé daanu si ginnaaw dama jékki-jékki rek maa ngi ci suuf xaw ma xaw ma sax li ma daaneel balaa maa comprendre maa ngi hôpital moo ma jël si waaw. li nga daanoo da nga fracture wala lan la. non non fracture mais jot naa opéré moo nekk nii ci loos bi waaw dañu nekk kii baat bi moo awoon xam moo amoon problème moom lañu opéré. mais depuis lors dara. daanu bu ma téye tànk. waaw moo téye lépp loxo yi kon mu di dara dëgëru ci damay débrouiller sama bopp rek mi hmm. léegi bi nga ban demoon. maa ngi woon CTO fa laa entré CTO fa laa entré fa ba ma génn waa fa laa def ay massage mais massage te amoo dafa métti trop aw ma moyen mu jëm ba ko continuer ma dagg waaw. li ma gisee nii mënu ma dara sama bopp bu nekkul tey ñi ma nekkal fii man dañ may bërëng kon saako ci kon bërigo nu ma defal dara yëkkati dañ may yëkkati teg sangu nul la wax rek la ma yàlla may ma dara. kon kon kon mënoo mënoo dox. man moo taxaw sax mënu ma a dox mën taxaw taxaw sax mënu ko. mais hôpital waxuñu la benn signe ne yow boo defee benn traitement wala nangam ëllëg di nga mën a dox wala dara. non hôpital waxuñu ma li ñu ma waxoon mooy opération bi réussir nañ ko un point un may ah jëm merci comme que réussir ngeen ko kay yàlla baax na da si kanam raw li bët waaw. loolu depuis kañ la woon. hôpital bi fii la kii le 3 mars le 3 mars demoon naa CTO waaw. mais ñi nga doon liggéeyal amul amul assurance wala dara. non assurance amul parce que du société. Massalikul ku nekk di nga ne société mais du société ku gagné sanc bi moom moo jàngal sama patron kon ku gagné sanc naar la naar boobu moo jàngal sama patron. ko man sama patron laay liggéeyal sama patron di liggéeyal naar bi waaw noonu dafa demee. taxawaayu patron sa feebar. waaw ça va parce que ñoo nekkoon hôpital dëgg rek tax may wax ah ñoo nekkoon hôpital euh, ñoo fi doon fanaan ba bu ma génnee ba fii ma fi doon ñëw waaw lu mu mën daal man def na ko sant yàlla rek. léegi jàppale bi lan nga bëgg ban façon jàppale. waaw euh, dafa métti wax dëgg yàlla dëgg tax may wax euh, man ma dara parce que man fi ma toog nii ku fa toogul ak xamoo. man leen toog xam naa léegi mu toll 3 ans métti na ku ma ma amee ku may jël prise en charge ma jël ku may ne xaar may la xaas nga ciy faju ma parce que dafa métti ku toogul fii xam nga man mi fi toog xam naa lu ma ci am. mais massage yi kon tey de moyen moo tax respect continuer woo ko. waaw mënuma ko continuer su ma amoon dinaa ko def mais ñàkk moyen moo tax ma toog di ma toog fi may fanaan baaxul. brique moo daanu ci kaw taw bu tawee fii laay fanaan tax aw ma moo tax nga soxna na aw eh, eh, ngay wax kon ñi lay seetaan te bëgg laa jàppale te am yéene pour jàppale la waaw ah, di sant daal di gërëm peut-être euh, joxe métti na mais nangoo ko gën a métti te man te sama sañoon su ñuy joxe laay bokk man damay ñaan dimbali rek ki ma ki ma jàpp rek yàlla rek a tax rek a tax ma toog fii nii parce que su ma sañoon du nekk fi ma nekk nii maa ngi continuer kon samay morom di jàppale jox samay waajur parce que man lañ am maay taaw. siège bi ku ko jox. siège bi euh, benn soxna si ma benn soxna ma ma ko jox depuis euh, Touba waaw mais ba may ñëwee andi woon naa siège mais kooku daf ma ko yéene moo ma toog ci ah, ma ko yéene moo tax ma toog ci am internet Dakar Buzz. dégg ngeen lii laa sana jeeju wax muy wax ci doyoram yaram di wax joo xam ne day jàmbaar di gor te it lii ko dal ci liggéey la ko dalee te gor ne liggéey ngam man damay lancé un appel léegi di ñaan ndax ñaan rek la man yéen bonne volonté yi may seetaan te mën koo jàppale mu mën a génn situation bi maa ngi leen ci xaar ndax taxawalul ba lii dal ko da doon liggéey ba li dal ko kon xandoor bu demee ca waar wàcc na nekk na ci li ko war ba yàlla ñëw ak dogalam dogalu yàlla nag mooy jiitu waaye li may ñaan mooy yéen ñi may seetaan te yàlla dénk leen ngeen di borom barke te mën koo jàppale jàppale leen ko boo ñëwee fi muy fanaan rek dangay xam ni kii soxla na ndimbal ndaw la daan dem ak dikk tey fu mu jëm dañ ko faa yóbbu tey bu génn ci situation yi ñaan na yàlla am tuuti loo xam ne rek dina ci mën a jàppandiku waaye li nekk priorité mooy fexe ñu mën a continuer massage yi ndax massage xaalis koy def te kon ne xam ne boo demee ci hôpital yi am na loolu fa war manque moyen moo tax mu arrêté massage yi te ku ne xam ne période bi warta arrêté massage yi ndax massage bokk na ci li koy delloo si pour yaramam bu dellul fa mu nekk woon à 100 pour cent it mu dellu à 60 kon massage mooy problème bu ñu ko mën a jàppale ci loo xam ne dañ ko mën a dimbali mu teg ko ci bërëb di jël di ci eggale ay massage am ak yeneen yoo xam ne rek xeetu jàppale la ndax réew mi yaatu na te ni mën a dimbale nit bari na jàmbaar la gor la te mi ngi toog toogaay bi yàgg na ku daan dem ak dikk la tey mi ngi ci siège bi euh, lan nga gisee émission bi di Dakar Buzz social nga xam ne mi ngi dugg ci biir askan bi di seet ñi am jafe-jafe mu génne ko exposé ko pour ñu mën a waxtaan pour solution am. waaw di leen sant di leen gërëm di leen encouragé parce que liggéey yombul fii lu waaye def di bëgg ñii di siisu euh, mais jom fulla ak fayda rek mën nañ ci mën a génnee. Euh, tamit di leen ñaanal yéen ñi di déplacé ñu ne waroon a déplacé mais amuñu tànk yooyu leen ngir yéen ñi di déplacé kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm mm, ca kaw ca kanam yal na leen yàlla suturaal li ngeen bëgg koo xam te yàlla ko yàlla jox ci barke alquraanu karim ca kaw ca kanam loolu la wax ma ci woo bonne volonté yi nag di ko tàmbalee nag ci taalibe yi sunu mbokk Baay Faal yi sunu mbokk jullit yëpp rek ndax ci néegu yàlla la doon liggéey Masaalikul Jinaan ci la doon liggéey ba daanu kon euh, li ma naan damay ñaan rek képp kuy jullit ak ku dul jullit sax tey doomu aadama rek te mën cee participer te xam ne euh, bàq bi tooy na ku ji di góob euh, defal leen yàlla ci sunu frère bi di laasana laasana la ah laasana jeeju laasana jeeju ma bëgg rek ngeen fekk si ma ci jàppale ko ndax kat ndogal la te fi mu ko dalee mooy ci barab boo xam ne néegu yàlla bu ñu doon defar pour jaamu fa yàlla mu ne fa di peinture jóge ci kaw daanu ndogal la waaye may lancer un appel rek ci yéen ñi nga xam ne yéenay liggéey ci wàllu travaux yu mel noonu bu ngeen dee yéegati na ngeen takk seen ceinture tak seen le naam dogal moom day ñëw mais na nga moytu balaa lu mel nii di dalaat may ñaan nag ngeen jàppale ko te xam ne daal soxla na ndimbal lu mu demee hôpital pour eggale ay massage sam mooy problème am ak ku ko génn ci situation yi soutien la te yaakaar ko kenn ku dul yow. bu baax maa ngi lay maa ngi lay sant. Idrissa Diédhiou lan nga ci Lansana voilà Lansana Lansana sama doom mag la papam yaay papam ak sama yaay seen seen baay ñoo bokk ndey baay euh, yàlla def bu mu nekkee dëkk ba ma dem bu fekk dëkk ba 2012 mu ne ma Tonce man de bëgg naa ñëw jàng métier mais bëgg naa ñëw toog ci sa loxo comme sama tonton nga ma ko amul benn problème léegi saay boo paree rek nga ñëw yàlla def mu ñëw muy at bu mu ñëw ma dugal ko ci métier peintre kon ni mu expliqué euh, li war a ñëw kenn xamu ko yàlla rek a xam jour boobu man chantier man tamit damay yëngu ci chantier ci ouvrage la nekk jour boobu presque une heure bi patron am Famara Sané ci la mu mu ne ma ah sa doom def na accident jour boobu man mii sax tuuti auto rey ma mun ma tàggoo sama bopp man ko ban façon accident mu a moo defal ndànk dafa daanu mais c'est pas tellement man ko noo bàyyi ma ñëw ci laa dem ma ne ko anamu mu ne ma gars yi dugal ko urgence CTO man mii sax damaa dem ba ma dugg commencé xuloo ak euh, ñu ko doon faj ñu ne ma génn ci biti ma ne leen du ma génn ci biti tant gis ma sama doom wax wax wax ba ñu mujjee dem woo keneen moom moo ñëw négocier ma négocier ma jénne mais nag métti na trop boo jooyee boo jooyee suñu waxtaan bul jooy boo jooyee dangay ngay yàq sama émission ak man te yàlla dina def sutura yàlla dina def sutura solution dana am bu soobee suñu borom nanu bokk ñaan rek te xaar yàlla te xam ne dana baax. waaw metti na trop parce que boo xoolee fii depuis bu mu defee accident bi wax dëgg yàlla patron naar bi daal bon sant nañ ko parce que opération bi kese dem na ba presque ay huit cent et dafa daanu ginnaaw la daanu ñëw yokk euh, damm loos bi moo waral opération boobu ba ngeen gis noonu mais yàlla def ki sutura balaa ñu koy dugal ci salle d'opération. benn ñag moom moo ñëw mu ne kii kan mooy papam euh, sam benn frère jóg comme français la làkk man bon sama jàng demel noonu kooku jóg mu ne man la mu ne kaay mu ne ko ah xale bi dañ koy dugal salle d'opération mais mën na ki génne mën na fa des léegi yow ban volonté nga jël mu ne ko ci loxo yàlla lañ ko bàyyi dugal leen ko bu soobee la dana génne yàlla def mu génn ñi dugal ko opéré ko mu génnee mais euh, waaw sant yàlla waaw sant yàlla looloo tax jéemoon nañu ut fi dimbal façon bu ne def nañ ko mais comme li lu mu wax lu mu xale bi wax rek lu mu yàlla dogal bu xasee am rek moomay am kon yàlla dogal na yéen seen télé ñëw fii ñun dañuy ñaan euh, ngir yàlla tax parce que kon ni nga xooxee ci bërëb jullikaay ci bërëb ñaan yàlla ci la yàlla def li mu def kon ñun dañuy ñaan waxuñu murit waxuñu tijaan waxuñu laayin waxuñu cadre cadre képp koo xamante ne doom aadama te mu am yërmande ci xale bi fu ñu mënee dimbale nañu dimbale te yàlla tax rawatina suñu mbokk murit yi parce que man même euh, waa ji yor euh, liggéey euh, jumaa ji nu mu tudd xaw waaw non ki yor liggéey bi nu mu tudd Makir fay jéemoon na ut ay audience bi ma war a def ba ma teg ko bët expliqué ko mënuma ko gis parce que sama benn xarit ku ñu naan euh, Sow peintre kat la moom laa expliqué problème xale bi mu ne ma xaaral naa la boole ak Makir fay mais def nañu lu ne sottewul donc maa ngi leen di gërëm di leen di sant euh, di leen di ñaanal seen liggéey ne ko yàlla yëkkati ba ci kaw yàlla def ndox mu set boo xamante ne képp fu mu mënta toll dana ne tele bi daal lañuy ñuy soxla mu ñëw def ñu reportage bi te yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def merci beaucoup. di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam nag àdduna ni àdduna amul solo lu waaye def sa bopp waaye sant daal ñëpp daal kontaan parce que xaaruma woon lii pour la première fois. yàlla leen ci yàlla jàppale su baro laay am li mu leen di wax yàlla leen yàlla sàmm yàlla aar ca kaw ca kanam seen émission Dakar Buzz social yàlla ñëpp am jàmm xaar leen ma lépp luy jafe-jafe ci dëkk bi man faral dinaa dugg ci biir kër yi génn ko ñu exposé ko waxtaan ko ndax am nañu yàlla dénk xool bu rafet te yàlla dénk leen ay xéwal ñu bokk koo dimbale jaamu yàlla yi émission Dakar Buzz social fii jàmm gën si Kambaaw jërë ngeen jëf